waaw soppe baal ma est bilay, eh est ko won. lire? ko won. mais soppe wiiri wiiri de ko pause c'est une page de pub eh eh ki ci buntu bi eh ah, président, pause pause pause eh xale yi ci leen fouet

ah ah ah nañ dem ci chose ba tak ngeen ko